ba nga xamante ne bii Mansour Tanor dafa yeb client ba nga xamante ne bii man fam ko fas yéene yëkkalee mooy sama problème te li ci doy waar santaan ñi nga la war a bëreel dafa bëri ak magam muy super étoile super étoile dóor ko mu daanu santaan ñi nga war a bëree ak rakku super étoile pourquoi nga jël santa waaw santa ne avant tout di sant yàlla julli ci yonent di sant sama ñaari waajur di di sant bu baax di sant tout sama waa dëkk waa Jurbel di sant waa Caaroy Géej di sant waa Lamsaar ak waa tablu Tivaouane ak waa Poste waaw sant loolu lamb la rek comme dafa bëri woon sama mag tey ñu dem ba daje. dañuy sant yàlla bi moo la moo moo la moo la ne jëlal jëlal jëlal waaj. noonu sax xëy toog lu yàgg bëreewuma aussi moom it mooy loolu noonu rek. waaw mais du dara waaw du ñaan suñu borom may ñu ndam rek incha allah. kan nga mujjee bëreel. man Mbaye Guèye Junior laa mujjee bëreel. Mbaye Guèye Junior benn. waaw ku daanoon. man waaw. nga jël santaan ñi nga dugg biir mbuur mu nekk ka nga xamante ne bii moo la jiitu ci làmb expérience la ak ki nga li nga xamante ne bii moom mooy jeunesse le 19 décembre expérience dina expérience ak jeunesse lan mooy lan mooy dominer. waaw làmb man loolu jaaxatuma parce que yaakaar naa Mbaye Gueye junior moo ma jiitu ci làmb Gabaar moo ma jiitu ci làmb ak ñeneen ak ñeneen su tey teewul damaa bëri ñoom suñu borom may ma ndam l'essentiel dinaa ñëw de fulla ak fayda di ñaan suñu borom may ma ndam incha allah. lan la bëre bi combat bi lan lay lan lay jeex xeex wala bëre ku xam tanoor xam ne loxo yi macha allah. waa lamb ji moom da ngay préparer lépp parce que lamb ji xamoo lu lamb ji di doon mun nga ñëw mu jeexee ci xeex mun nga ñëw mu jeexee ci bëre dañuy pare ko te yëpp rek waaw di ñaan suñu borom ma ñu dam incha allah. yëg naa yaa ngay yëngal Diourbel yaa ngay mobiliser Diourbel. waaw Diourbel moom ñu ngi mobiliser bu baax parce que di woo aussi autorité Diourbel di woo sama patron euh, DG Moustapha Gueye maa ngi koy woo di woo ministre Dame Diop di di woo Serif At xam di woo képp kuy euh, Pa Modou Fall di woo aussi euh, euh, Pa bu Kama Pa bu Kamara maa ngi koy bu baax a baax a di woo autorités yi Jurbel yëpp di gërëm sama mag sama xarit muy Etienne Ngom waa aussi ak Badou maa ngi siyaar Badou bu baax sama Badou Diouf waaw sama xarit la. Taalibe Bamba. Taalibe Bamba moom semence ak suuf si. waaw moom la waaw. béton beeg suuf borom béton beeg suuf si. rendez-vous le 19 arène nationale. incha allah fayda def lu wóor dem suñu yoon ci kàttanu yàlla.